jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo tey nag ñoo ngi fii Malika Malika Montagne seet si ndaanaan boo xam te daa bokk ci làmb su ma nee daa bokk ci làmb bu nekk Kara Dollé xel yi dina dem ci lu bari Kara Dollé mbër Kara Dollé bari bayre Kara Dollé bari cëfa cëfa Kara Dollé daal ak nii ma bàyyi ko mu nuyoo jàmbaar nuyu naa la. fay nañ la asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. waaw comme ni nga koy waxee ginnaaw bi ñu sant yàlla sant yeneen bi ñu ngi gërëm suñu ñaari waajur sant Serigne Touba Khadim Rasoul xam di sant sunu dëkkandoo yi sant comme ni ma koy waxee balaa may wax dara maa ngi sant waa Mboubas tànk ñoom laay wuyoo. Mhm. Malika Montagne di wax jërëjëf Serigne Touba Khadim Rassoul jaaraama maam Thierno Ibra Fati ñu ngi sant Sénégal ñaan Sénégal jàmm xam nga di ñaanal Serigne Laay ni tout mhm. tànk leeram yi laaxu ñu leen di ñaanal yàlla. Mhm. xaare leen àjjana sunu mbokk Guinée Bissau yi am guerre foofu noonu ñoom ñuy élection di am coow yàlla defal leen jàmm def Sénégal jàmm ñu ngi nuyu suñuy waa koñ di bëggee ñëpp di leen dalal di nuyu sama booy ma toogal sant naa ñëpp daal waaw lu mu gën a dem rek mu gën a yaatu. dinaa la boole waa la Lamb xam naa mu ñëw seet si la nga ànd ma ci yooyu. waaw maa ngi bëgg a dee fi mu toll nii. noo yooyu moom yooyu moom almadeeg pale sax instant yooyu da cee ñëw. non mais fii da cee raw. maa mais fii foo dem tàpp bàyyi. Ah. fa nga nekk moo dàq tàpp ñëpp bàyyi faal tàppal ta noppi rek. <laughs> yee noonu la demee. mais ñu gis ne combat yi yaa ngi taxaw mais bu bëleeg déggaguñ la te lu xew ci làmb la ne ñu dégg la ci lu waral lool. waaw ñun ñun ñun moom séddale si kuddu yu njëkk yi lañ ci taamu. Mhm. yàlla def na ñun làmb mosu ñu see def année balance mu ñu si defee année balance daaw. corona bi moo tax waaye suma papa suma xarit. Mhm. suma kilifa suma lépp suma papa Abdou Lahad Ndiaye. Mhm. waxoon na dinaa bëri si Gris 2 xam nga waaye suma papa la nee na ma naa xaar Balla Gaye la de bala Balla Gaye bombardier wala combat la de en tout cas daal dinaa bëre si kàttanu yàlla du ma def année blanche. mais moo ngi lay adversaire wala proposé gu la. non adversaire proposé wuñ ko waaye ñun suñu combat du yomb ndax ñun poids lourd lañ. tey tey am na combat poids lourd balaa ñoo pare fii. sëñ bi nu wokkatu rek muñ <laughs> tari wala aadiyaat rek. <laughs> waaw ñu ah, mun xam ne lii kat mënuñu ko continuer lii. waaw kon ñu def subhaana rabbil izzati amaa su foo ñaan ba beneen yoon rek. Ah. na ñu tàppatu nii rek. ñu tàppatu waaw mooy loolu. ok <laughs> dox seen combat mënul yomb. waaw mënoo nekk cent et quelques kilos di bëre ñu lay jox ay soixante et quelques kilos ta nekk. say morom lañ lay jox. tey man bu ma dee bëree ñu maa mënutuma bëree koo xam ne day posé ndax man maa ngi def ay cent trente kilos cent trente nangam kilos dugub man Balla Gaye ëpp ma. Mhm. Modou loo ëpp ma. la dëgër de ëpp ma kenn ëpp ma kon mënutuma bëri poids laissé moo tax ma ne la sama combat waratu lu yomb moo tax ma ne nañ joxe jatli ñoom jatli nañ ñëw ñu waxtaanee ko fi mu toll nii moom yaa yaa jatli war naa mën a neex. waaw waaw man li tax ma bëgg soxla jatli jatli États-Unis la demoon pare combat pare ay entraînement am ñëw yàlla def mu pare combat daanu. Mhm. rakam mu ngi ci làmb ji def performance muy soq mais kon nañu ñu bëri man ak mu mënuma bañ. la moo tax nga yàgg a topp jat li sonal ko te bi ma la seetsee bee passé toppoon nga ko. waaw ñëwaat tamit nga toppaat ko lan la. mais su ma bëggoon lu yomb damay laaj ay Tafa Gueye 2. mais ma dama la jox exemple damaa su ma bëggoon lu yomb ñoom Tafa Gueye 2 laay laaj. Mhm. waaye ñoom Tafa Gueye 2 mënu ma leen a laaj ndax ñoom ay mag lañ. Mhm. jat xam nga ne dafa soxor mën a dóor nekk xale moo tax ma bëgg ñu bëri ma moom coow lu jeex. yow lu metti daal ngay wër fi waaw mais sëñ bi tamit lu yomb tamit dëgg yàlla góor yàlla waru ko am moom sax Baye faal bi maa ngi jégalu. ok budul budul budul jat li man ba léegi budul jat li na ma kii Aliou Mané États-Unis la jógee may dama may dama may. sens nga yaakaar yombul. non Aliou Mané Aliou Mané dem États-Unis def si lamb ji lu ñu deful Aliou Mané bëreeg ay champion moom Aliou Mané bu ñu bëree moom danger bi si man lay nekk moom moo may may sens yee la demee. ñu gis ne mën nañ ne ay fan a ci des ñu ñëw ci CNG bi Alioune Sarr di waaj wàcc noo gisee loolu. waaw ku nekk ngi wax nag. président Alioune Sarr liggéeyal na làmb moo génn ci làmb jamante moo ci génne saagante moo tax gars di ñëw ci làmb ji dóor ay parfum ak blazer mhm. waaye tamit làmb ji kenn moomu ko nekkul alal joo xam ne da ngay ñëw toog rek mu mel ne affaire de buur. Sénégal kii day toog jóg keneen ki ñëw toog jóg isa ay déglu ma la expliqué. Mhm. Alioune Sarr na ñëw génn ci grand porte Alioune Sarr normalement dafay war a def loo xam ne bu dee jóg. Mhm. ñun dañoo war a def ay rendi seeg takk ay sër ñëw tuusal ko mu génn naaj ñu wàcceel ko drapeau bi. mu nekk lu rafet ndax def na ko fi waaye bu toogee nag sëñ bi ay 26 ans de carrière mel na sëñ bi tamit lamb bañ koy defar bañ organiser lamb këram lañ ko organiser loolu rafetul daal. waaw na ñëw génn ndax def na lu rafet nag lamb moo ci génn yu bon yëpp indi lu baax waaye tamit benn bu baax ñaari baax ak a gën ay Alioune Sarr Alioune Sarr a ngi fii si dëkk bi. léegi su ma déggee nga ne Alioune Sarr dafa génn par la grande porte ah am ñoo xam te ne puus nañ leen wala boog teg nañ leen fi am benn cuuraay si lii kay. bàyyi ma téye ko nii demal. <laughs> lu bees tax rek. <laughs> kenn mu émission tëri sa cuuraay yow. kenn musul gis lii lii ngeen nii nga ko déggee ngelaw di ko ëpp. waaw noonu la demee booy teel nii waaw. gis nga lu bees tax na. am ngeen lii Wassare Lamb ak ñoo di tourné. yooyu di la matt ñu taal cuuraay. kese yaa ma gën a xam léegi. ñu ñëw ñu ñëw ci Alioune Sarr nga ne dafa war dem. ñu dégg nga ne Tyson am ñu ko fi andi wala boobu sampal nañ ko ndënd nga am loo wax ci Tyson lan moo tax nga ne Tyson warul jiite CNG te am ñoo xamante ne Tyson bokk na ci làmb xam na li mbër yi du dund Tyson mën naa yoo CNG bi. mais sëñ bi Tyson buñ ko nee jox lamb ji ñoo ko yëkkii nii sëñ bi Tyson ba mu bàyyee làmb ba léegi ñëwul si làmb organisé wu fi lamb Yékini bi lu bon bon mu na làmb waaye mu ngi mu ngi mu ngi delloo làmb njukkal saa ngi déglu Tyson tey bu dee man boog maay joxe. Mm-hmm. joxuma ko Tyson xam nga joxuma ko nekkul pour manquer respect nekkul dara Tyson moo indi si làmb ji tuus moo ci indi lépp ñu koy ñaanal yàlla waaye tamit dama lay xamal ma ne la Tyson duñ ko jox làmb ji xam nga duñ ko ko jox. Tyson ba mu bàyyi làmb la géej làmb. comprendre nga li ma lay expliqué Tyson mës a déggoo ñu ne moo jàppale bii mbër moo def lii moo la moo ñëw si làmb ji taxaw tuus amul ñu njëriñ gañ ma la sumbaay buñ ko joxee làmb ji mooy gën nañoo dee rek bàyyi faal. mais est-ce que est-ce que tanewul ko génn na sàqi ñu aj ko. est-ce que yaakaar na loolu taxul. ñun waruñu ko tane ku wér la ñuy tay wër tane baaxul ku tane mooy ku feebar bay waaj a tane. dégg naa ne ñu ne tan fu mu am jàngoro ju. waaw tan moom fu mu am moom comme nga am ay ndoxum si rek ay ay bu nekkee veggoom di si denc yeneen dis de loolu tane la ñun dañoo bëgg ku lisik yee koo xam ne bu ñu ko naree jox Tyson nañ ko jox suma papa Abdoulaye Ndiaye mu géré CNG. Abdoulaye Ndiaye men waaye doo ma bàyyi Abdoulaye Ndiaye mooy lamb Sénégal instant yii nii voilà. mais moom mais moom déposé wul. pour mu déposé wul Tyson daa déposé. ah amul ah. déedéet man kay yow laay laaj. non non yow daa déposé. Tyson waaw gars yi déposé. non déposé. dama lay ñaanal <laughs> jaar ci kanam caméra bi déposé wul de. ah déposé wul bu ñu jugee foofu del jël kaas nag ndeysaan. ay ca di dóor mbaay mi neex. lii de feeñ la li ma gën a neex na xoolal da ngay déggal furux bi jëlal. <laughs> maa ngi nuyu sam bàjjen gu baax bële. Ah. ak a baax ndeysaan bàjjen ñu ngi lay siyaar bu wér. yal na yàlla defal jaamu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sunu bàjjen bu baax la. baay defal furux baay furit bi xanaa xamoon ne booy naa ataaye. Mhm. dañ see def furit bi pour nga koy naan muy def furux. bu nekkul loolu loolu ataaye kese lañ lay xeelee. jëlal. <laughs> jaajëfati baay faal bi. aar ma am dóoramu gaaw non dañ koy xeeli. yee baa yow da ngaa yéex de bàyyi mool la. gis ngeen ni lañ koy defee ci wasaare làmb làmb am na li nga xamante ni moo xew ci dëkk bi tamit bu xewee dañ ca waxtaan pour ñi nga xamante ni nii ñoo lay xaar ci làmb loolu leen wax ñu tàggatoo. waaw li ñuy wax mooy man ñi ma dëkkal xam nañ ma. sëñ bi Fatick. fa dem toj. fi ma dëkk su may morom xam nañ ma. li ma lay wax sosuma Lac Rose ñu waa Fass xam nañ ma waa waaye xam nañ ma ñi ma dëkkal xam nañ maay kan dem naa fatik toj ko keneen ak keneen ndax damaa nekk ñoom waaye nag seen bi chaque jour nga gis ku nit di def dara nit di def dara ku ko dàq du ci lekk dara. Mhm. loolu am ku tedd dikk mooy seddale man làmb ji am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi ciy lekk ay million ku ma ci man man dama doon toog nit ñu fay ko. 30 millions 40 millions mu ñëw jël ma ne ma may ma contact ba combat am pare du ma ma daan. du la daan moom barki maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp. te mënuñu laa dégg fenn. soo bëggee non ñu ngi may dégg. dégg moom boo déggee max la ñu may dégg. waaye lamb <laughs> waaye lamb daam muy doxee man may ñëw si lamb dama doon doxee man kenn musuma dóor ma daw kenn musuma jàpp weñ ma néewal ma doole. man maa doon ñëw di def yëfu kon ba lamb perte. waaye ba ma duggee ci làmb yàggul man maa ngi dugg fee 2013 si làmb kon tàmbaleegu ma sax ba pare dese na ma ay 14 ans si làmb yàlla mu ngi may jàppale. tey la doole ji gën a yokk tey la tur bi gën a yokk fu ñu xam nit xam nañ ma fa maa ngi ñaan ñi ma dëkkal premièrement ñi ma dëkkal mooy booy ñoom ñoo may sagal mooy booy taxaw ñëpp ñoo may sagal. ñoom ñoo may demal esaat ma leen di taalal loxo di ko taalal waa Malika di ko taalal waa Géejawaay di ko taalal képp koo xam ne yaakaar na ne mën na maa jàppale ma leen di ñaan ngir jëmmi Seydina Muhammad surtout sama waa koñ ñu jàppale ma ndax wax dëgg yàlla ak yeneen bi découragé wu ma te ci kàttanu yàlla ak yeneen bi lambu li ma li amel naa ko fay maa ngi ñaan yàlla nag ndax yàlla mooy may ndam ndax lamb yi gën a mag Sénégal ay spécial kuñ ko spécial bombardier Gris Bordeaux Modou Lo la degeer buñ ko joxoon. Ama Baldé Modou Lo sax ñu bëre ko mhm. waaye man lañ koy jox lamb yu mag yëpp ñu mu nga jox maa leen di ñaan ndax man maa leen war a ñaan mhm. di ñaan kilifa diine yi di ñaan sama dëkku yaay Sigi Jaaj waa Yamal waa Tayba waa Sandika ma jugee foofu dem Bambay di dem euh, Taatine Bambara su ma dëkk papa dem Taatine séeréer Taatine tukulóor dem Kel dem sama mbokku papa yi man Mali laa maa ngi dëkk dëkk bi ñuy wax Masina Mali. man pëlu machine maa ngi ñaan waa machine ñu jàppal ma te rek tax ndax soxla naa ndam ndax booy ma nekkal chaque jour man sunu kër fii musoo fee gis ñu réunion fan si club yàgg na bañ ko gëjee def te bu ma dee bëri lu ma day dix quatre huit kaar may topp waaw kon man ñàkkuma supporter mhm. maa ngi sant waa Mbëbës for jaay mhm. for lekk for faxas for yóbbul dëkkandoo sàcc ñu defuñu dara sëñ bi bu ngoon jotee boo taxee fii di jaay di wecceeku loo looy jaay booy mbay nekk mbëbës jënd ko te duñ ciy def dara xam lu ñu def di dawal seen i bu ngoon jotee ñu dem defee ñoo ñàkku ñu ay récupérateur lañ yow li ngay sànni na baaxul la ñuy jël dugalaat ko si dëkk bi defar ko ba mu baax muus tojutu sees yi ngay sànni ñoom dañ koy jëriñoo sant naa jéegu koñ bi yëpp sant suma doom sant suma soxna dëgg yàlla ak bi sant. séeréer tey moom wax dëgg yàlla ngeen di bi émission bi sama soxna daane ma demal defee ko kër ñoom Pape wax dëgg yàlla loolu la ma wax Pape suma jarbaat la maa ngi koy sant di sant sama yaay bu baax a baax a baax a baax ndax sama yaay jaayul jën li may wax chaque jour jaayul jën 500000 sama yaay jën fukk lay jaay ba tabaxal ñu si kër may ñaan yàlla guddal su sama fan yaay di ko guddal képp ko am yaay ma guddal sa fan. maa ngi sant madame Tamaro Seydi Seydi Abdoulaye Daouda Diallo. di nuyu Daouda Sylla di nuyu Zende maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa ASISEM suñu societé bu ñuy liggéeye ta nga xam ne fan yi ndox mi moo ñu soxloon ba tax ñu arrêté sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp yow nag yow maa lay gërëm bàyyi fa ndax yow yemoo si ay wax rek yow da may jàppale chaque jour nga déglu nga woo ma téléphone na ma nii ngay def nii ngay def yow xam nga man xam naa yàlla xam naa ñu ñaan yàlla defal ñëpp jàmm si barki Seydina Muhammad nuyu naa booy toog yëpp booy mafia bi yëpp. boo yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla ndax tamit xale mooy dooni mag ëllëg ñu jàppalante rek dimbalante te yàlla rek tax walla boog walla yee mooy loolu léegi ñu jox seexu yàlla bi mu tëj waaw seex bi muy muy mooy tëj moom ku baax la sëñ bi kii day bég tey bégale waaw kii day bég tey bégale Pape sama jarbaat baa ngi nele xool ko mu ngi nele Baye Fall jëlal ma keelaa may émission bi tey paa ba ngi ne la suma jarbaat yàlla na ko yàlla defal jàmm kii moom yow yow moom lenn rek laay xaar ci yow yow ñu ne tey da ngay takki jabar barki Serigne Touba Mbacke yow boobu dina mel ne man la suma waaye mbaxalu góor jigéen yow dundal rek jaajëfati jaajëf gis ngeen kontaan naa bu dama fàtte suma tuut tànk yi maa ngi koy may ku si mel ne bébé mhm. almaami xam nga euh, euh, kii Saliou Mayga mhm. Philippe xam nga maa may boo yëpp daal boo yi nga xam ne yàlla def nañu am nattu ñëpp di ñaana ñi nekk ñu di ko may Isma di ko may ñi nekk 100 mètres ak campénal la yëpp Baye Fall Guinée Bissau ña fa nekk di door civil yi ay bal ñuy dee te bañ soxlaa dëkk bi civil yi ñoo leen vateel ñu ngi def lu ñaaw sëñ bi président Guinée mu ngi am ay 60 an et quelques militaires yi yor affaire yi di tiire ñoom ay 30 ans lañ am di dóor seeni moom nit ju am ay 30 ay bal loolu dafa ñaaw nañ naxtaan ñooñu dañ xam ne Mali amoon na loolu Guinée mu ngi koy am kon président Macky Sall na xool lu muy def bu baax a baax a baax a baax a baax lu neex nit ñi mu def ko lu ko naqari mu bàyyi. Sénégal yàlla na ci jaamu yàgg subhaana rabbil izzati amma yasifu wa salaamul ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin xanaa jeex na tàkk gis ngeen ni lañ koy defee ak Wassare Lamb tey ñëw fii ah kii dëkk doole def ak moom émission bu neex xanaa ñu jox seexu yàlla bi aadama su pa bu la neexee mën ngaa tëj waaw bala may tëj bala may tëj damay wax ci karaam yi man Pikine laa juddoo Pikine laa màggee Pikine laa ma papaam maa ko doon wayal mbapat mbapat mu am pikin maa ko daa way karaa fii lañu xamante mais Kara dafay nit koo xam ne dafa modeste parce que wax sa mbaaxu waay du wàññi sa mbaax dara man li ma gis ci Kara rek laay wax ragalu ma nag ku dul yàlla. Kara yaru na respecté na ay ay nijaayam fu ma ko fekk danaa ma tons respecté ma. ngañ dem maag di jalis naa ngañ demba ko Ali a tureer naa a tureer naa a tureer naa kuy doon ma Samba Jeey di jalis isna ngañ demba ku walima tangiay bi jalisna ngañ demba ku walin jaay kara atureer na Youssou yaakaar naa du yegg. acca acca. waaw wul. waaw. Baay Faal gaa ngi nii mafia bi. Dura yaa ko def foo defes. Dura yow waxal. 77 77. 485. 12. 12 66. waaw góorgóorlu nag dara jomb la dara jomb la. soobee yàlla bu ragal kenn ku dul yàlla. jaajëf jaajëf nice ah. waaw nice. mooy loolu.